bisu korité bisu jàmm woote dialogue ngir ñëpp booloo. je renouvelle. maa ngi woo ñëpp ñu waxtaan sottante xalaat loolu yëpp nag dañ koy def ci respect ak fonk charte réew mi. dans le respect de l'état président Macky Sall tàllal loxoom ñeneen ñi parti politique yi société civile wala mouvement citoyen yi ñëpp la woo ngir waxtaan wante woote googule ñi nga xamante ni ñoo def 24 dañ ko dàq ginnaaw bi ne ñooma lu ñuy ut rek du leneen lu dul génne président Macky Sall ci élection présidentielle 2024 balaa ñuy toog di waxtaan. jàmm gën troisième mandat. mu dellu si ci li mu waxoon parce que du lu bees. waxoon na ko bind na ko loolu moo expliqué woon référendum 2016. ñi nga xamante ni ñooy forom justiciable di kuréel gi nekk ci ak ak di saytu yeleefu doomu aadama ñoom nee nañu ñu ngi wax opposition bi ngir ñu ñëw ànd ak président Macky Sall toog waxtaan ngir tabax lu mag loolu yëpp ci respecta Sénégal ak ay institution am loolu tax ba mu am yenn ci parti politique yi ñoo xamante ni dañu génn ni bëgg nañu waxtaan ñi ko def nag moo di base politique bu taxawu Sénégal bi nekk ci Pikine ñooma ñiy woo xalifa Sall. sunu leader di Khalifa Ababacar Sall mu jóg dem uy ji oote boobu nga xamante ni njiitum réew mi oote na ko pour ñu waxtaane ci mbirum réew mi. ñooma ñi woo tamit ñi nga xamante ni ñoo di coalition Yewwi Askan Wi. ñu def lu ni mel léegi nag woote am na lu des rek mooy xool. kan moo koy nangu ngir mën ci profito defaraat taxawaayam ci biir champ politique bi.